Cheikh Béthio Thioune yàgg fi lool te ànd ak wér. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jaamu Serigne Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg lool te gën a wér. mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu nuyu mbokk jullit yi waa Sénégal waa àdduna man Cheikh Adja Saliou Thioune mu Cheikh Béthio maa ngi leen di nuyu di leen yëgal. bisub gàmm bu ma wootee ci ndigalu Cheikh Béthio Thioune fa sama kër Zac Mbao tuddee ko Xelkom maa ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp di ci woo waa Sénégal ngir loolee nga xam ni dama cee jot ndigalu Cheikh Béthio ci woote gàmm sama kër ndax daf ma seexal fan yi ñu weesu jox ma ndigal ni ma képp ku bëgg ti jébbalu nanga ko nga nangul teg ci ni ma bis ne tey may naa la ngay woote gàmmu fu la neex maanaam sama kër ca Zac Mbao ma ciy woo waa senegaal yëpp di leen wax ni euh, maa ngi koy ñaan yéen bii mu ma yéen mu dimbali ma ci ndax moom de xam naa ni lii mu def bëgg-bëgg Serigne Saliou la te xam naa ne dina ma ci dimbali may woo waa àdduna sépp di leen woo ci gàmmu gi may def fële ca Zac Mbao ci sama kër Touba Xelkom may ñaan Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàgg fi